asalaamaaleykum mbokk internet Leewtoo TV ginnaaw ba mu leen nuyoo di am contentement ak mbégte yi jano yéen chaque a si bopp xibaar yi ci noonu nag damay nuyu Assane Wall ma feggool rek daal di leen jukki a fës Assane la Ndembake fay naa la di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo la ñoom pour indi leen li gën a fës ci yéenekaay yi ma nga noonu nag revue bi Ibrahima Dior moo leen koy may fii ci Leewtoo TV chaque jour samedi 3 avril 2021 journal suñu lam moom xëyee ci xëtëb mu njëkk la saison 3 ce 4 avril Eumeu Sène Lac de Guiers régalé nu lu lañ xam ne ci journal bi Assane. dëgg la Ndeye Mbacke tey la samedi di 3 avril ñu war a jëm ci suba di dimanche 4 avril euh, war a seetaan diggante Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène journal suñu làmb nag tey xëy tiitre ñu la saison 3 ce 4 avril euh, Lac de Eumeu Sène Eh, régalez-nous noonu la ko journal suñu làmb waxee nee na daal suba li ñuy xar ci ñaari mbër yi mooy que ñu kontaan loo bi amateur yëpp kontaan ci ñoom ndax bëre bi ñu fa war a def. Eh, léegi nag journal bi nee na Eumeu Sène moom ñi ngi ko convoqué 16h45 Lac 2 war a ñëw ci stade bi à partir de dix h nee na Lac 2 eh, objectif bi mu war a am def suba moom mooy mu mettre fin à la razzia bu nga xam ne ni Eumeu Sène mi ngi koy am depuis 22 ans foofa ca écurie Waalo Euh, suñu làmb jox na également kàddu waa Pikine ñoom naa luñ gis mooy que dañuy dóor dóoraat Ndeye Mbacke. mu nga noonu dóor dóoraat la waa Pikine décrété Mamadou Ali nga xam ne nii mooy coach Lac de Guiers 2 le puncheur de Waal xam ne mooy Lac de Guiers va lui montrer de quel bois il se chauffe. dëgg la euh, Ndeye Mbacke Mamadou Ali Ndiaye moom mooy coach euh, Lac de Guiers 2 nekkoon na auparavant nag coach Eumeu Sène waaye ci combat bi Lac de la ci àndal moom nag lu mu wax nee ne Euh, euh, Lac de Guiers de doit montrer à Eumeu Sène de quel bois il se chauffe noonu la ko journal suñu làmb waxee nee na Lac Mm, Lac euh, fait euh, partie des lutteurs les plus puissants noonu la ko waxee nee na Lac de Guiers lutteurs yu gën a puissant ci arène bi ci la bokk te euh, bi mu koy bi mu koy yore bi ñuy départ seen entraînement yi boobu lag de mu ngi amoon cent quarante cinq kilos mu ne ko loolu bëri na il faut que mu wàññi dix kilos nee na durant préparation ba boobu yëpp ci loolu la nekkoon te yaakaar ne ne atteindre na objectif boobu nee na moom repéré na force am um, force Lac de Guiers ak faiblesse yi mu am yëpp mais force am yi daf ko yokk bu baax a baax a baax ba suba incha allah mu war ko wane ci kanam Eumeu Sène ma nga noonu nag Mamadou Alé ko wax nee na war la de woon tàngaayu loxoom wala diisaayu diisaayu loxoom wala tàngaayu yaramam <laughs> ma nga noonu ba léegi 4 avril lañu desandi Diène Kaïré Modou Anta un mortal combat ce dimanche Assane. dëgg la euh, Mbaye dëgg la Ndeye Mbacke avant euh, Lac de ak Eumeu Sène beneen grand combat dina am nag ci journée boobu mu war a dox ci diggante Diène Kairé ak Modou Anta euh, toujours suñu làmb ñëw titré ci combat boobu nee na Diène Kairé Modou Anta. un mortal combat ce dimanche combat boobu nag combat boo neex la ndax day daje day dajale ñaari ndaw yoo xam ne nii ñi ngi seen digg doole Diène Kaïré nag ñi ngi ko convoqué à partir de 16 vingt cinq après moom Modou Anta dina ñëw à partir de 16h30 Ndeye Mbacké. ma nga doon nag Père Gaston narul yombal li nga xam te ne mooy journée 4 avril bi show à l'américain ce 4 mhm. avril kii di Balla Gaye 2 le B52 de Mbour Sa Thiès Moussa ak Pakala dañ fa teewee dëgg la Ndeye Mbacke suba journée de feu la nar a nekk ndax après euh, Modou après Diène Kairé Modou Anta Lac de Guiers ak Eumeu seen yeneen combat yi Gaston taxawal tamit ñooñu dinañ fa teew ñu war fa xaar donc euh, Balla Gaye ak euh, Bombardier di B52 war fa xaar Sa Thiès ak Moussa Ndoye waaye war fa xaar également Pakala ak Forza ñii ñëpp dinañ fa nar a ñëw bu def seen première face à face kon suba daal journée bu nar a neex la. ndey Mbakke arène nationale du yomb. gala de lutte simple à Joal ce samedi 3 avril mise 3 millions de francs CFA en jeu Assane. la euh, bu ne suba le 4 avril ak euh, Eumeu Sène euh, Lac de Guiers tey si samedi bi arène nationale war na fa. Joal Joal plutôt war na am benn gala bu bu mag a mag a bag boo xam ne nii li simple lay lay nekk. gala bi nag mi ngi war a am ci stade boobu ci Joal mu tudd estade François Bopp. kan moo koy tëgg nag Mamadou Diouf la moom moo fay def benn mise 3 millions de francs CFA ki ko war a tëgg moom mooy Mbaye ak ak Jab Jaañ ñoo ñoo war a animé gala boobu ci suwaal tey jii ci samedi bi. ma nga noonu nag ba léegi lu simple lañu desandi samedi et dimanche de feu à Dakar 4 millions 600 à l'arène nationale et à la ñu naan làmb ji sàjj na nag Assane mu ngi soo ko nekk dëgg. dëgg la euh, Ndeye Mbacke làmb ji sàjj na tey ci samedi bi am na gala waaye comme suba euh, lutte avec frappe la gannaaw suba di la nit également dina am beneen lutte frappe loo lutte avec euh, sans looloo tax samedi tey prince moom moo xewle moom moo moom mooy teg foofu ci arène nationale 3 millions 600 waaye journée bi yëpp wala samedi ak dimanche bi journal suñu làmb bi mu calculé moom mise u 4 millions cent mille la gis entre Adrien Senghor ak arène nationale mu nekkoon journée boo xam ne journée bu riche la euh, mbëri simple yi war fa ñëw war fa am mise yoo xam ne yu yoo xam ne ni bu ñu ko gàñee dinañ am lu yóbbu seen kër nag ba Dakar tàng jër fee ca Gandiaye neeneen leen demuñu mu des kii di Sibassor production mu ngi fay teg mise cinq dëgg la Ndeye Mbacke foofa ca Gandiaye gala inédit inédit à Gandiaye ce samedi benn cinq u 500000 lan lan fa teg kan moo ko fa teg Sibassor productions ñan ñooy animé gala boobu kooku mooy Maodo Faye di eh, le gaucher magique ak Ndeye Fatou Adama Diallo ñaar ñooñu ñoo war a animé gala bi kon tey ci Gandiaye nar na nekk wala ci Gandiaye way tey ci Gandiaye war na nekk journée bu neex a neex a neex ci li simple bi. ma nga noonu journée tey bi daa daa saturé sax laay wax. bu ñu mhm. jógee Dakar dañuy dem fi nga xam bu ñu jógee Dakar. Mhm. dem Gandiaye dañuy jàll fi nga xam ne mooy Ndiafaat Ndiafaat ba léegi teg na li nga xam ne mooy mise 500000 moom aussi Assane. dëgg la bu ñu jógee Gandiaye dañuy dem. suma sum galaa galaa dalit njaafat njaafat dëgg la sum après la kon am na benn galaa également galaa dalit simple Euh, si Ndiaffate Escale tey la moom it ci samedi bi kan moo ko tëgg góor yi euh, production moom moo fa mise cinq cent mille ndey Fatou Adama Dialy ak Mor Ngom ñoo fa war a ñëw animé gala boobu suñu fa jógee nag bu arène nationale di tëgg di yëngal fee nga xam te ne nii mooy sum dina mhm. yëngal moom aussi la fa teg mooy mise u cinq cent millions cinq cent mille francs autant pour moi euh, dëgg la dëgg la Ndeye Mbacke kon après Ndiaffate Ndiaffate ñu jëm ci sum sum tamit am na benn gala bu loolu suba ci 4 avril bi lay nekk mhm. muy dimanche bi kan moo ko fa tëgg sum production mi nga xam ne ni Ablaye Ablaye jóob moom moo ko jiite moom moo fa teg benn mise u 500000 francs CFA mu indi Abdou ñaa ak Mbayang Loum pour ñu animel ko gala boobu ma nga noonu nag pap Diop la ñu sekkal waxtaan ak journal suñu làmb moom mi nga xam ne mooy coaché Modou Anta am na yaakaar ci nga xam ne mooy problème aussi nee na daan Diène Kaïré du exploit mais loo xam te ne dafa nekk ci yoonam ñu war koo fa xas jàll Assane. dëgg la Ndeye Mbacke Pape Diop moom mooy euh, coaché Modou Anta mi nga xam ne ni moom moo jógee ci Thiès war a jàkkaarloog moo euh, Diène Kaïré moom nag coach bi nee ne battre Diène Kairé n'est pas un exploit pour Modou Anta nee na Modou Anta daal du bu daanee Diène Kairé du nekk exploit pourquoi parce que Modou Anta moom moo ko jiitu ci làmb ji moo ko ëpp expérience waaye nag ñëw na ci préparation bi nga xam ne nii moom la defal ak lutteur bi nee na pare nañ pare nañ ci tous les points sentir ne na mbërëm pare na pour affronter Diène Kairé waaye nee na làmb moo tëradi rek waaye Diène Kairé Euh, nekkul sax mu moroomu du Anta ndax Diène Kaïré ay moroomam yu nekk ci écrit boobu mooy Laay Laay Goté ak Amdi Nogaye ñooñu ñoo nekkoon vrai adversaire u Diène Kaïré waaye nag lamb moo tëradi ba tax Diène Kaïré mën a dajeek Modou Anta. maa ngi doon nag góorandoo yi la xam ne ci journal suñu làmb mooy. billet yi nga xam ne moom la ñuy jaay ci diggante la daggeer Eumeu Sène dafa cher trop assan dëgg la euh, Ndeye Mbacke Gorondooy moom mooy président AJAL AJAL moom mooy association des jeunes amateur de lutte euh, du Sénégal ñoo nag ñoo formé wu moom li mu gis nee ne euh, billets yi Gaston présenté amateurs yi dafa cher ndax nee ne billets yi euh, loge loge kii bi couverte bi ñu ngi ko fixé 10 000 annexe loge bi ñu ngi ko fixé vingt cinq mille loge officielle mais ñun démb ba nu woowee Gaston di ko laaj prix yi def nañu prix trois mille la commencé trois mille dix mille ak vingt cinq mille xaw je pense noonu la wax. kon euh, prix yi am na différence li Gaston wax démb ak li Gora Ndeye wax fii am na différence waaye xam naa ci kanam dinañ ci gën a am lu leer incha mu ngi noonu prix yi daal tàng na Gaston daal moo tëgg bisam di ko séddalee nu mu ma nga noonu ci rëg-rëg la ñuy jeexalee ak MMA rëg-rëg à Singapour depuis hier ginnaaw ba mu jógee fi nga xamante ne na fi nga waajal combat bi le incha allah Assane. dëgg la Ndeye Mbacke rëg ñëpp xam ko mu nekk ci préparation yu métti instant fii foofu ca Dubaay nekkoon foofu ca di préparer combat bi nga xam ne ci MMA lay nekk war a am le 7 avril bii di ñëw nga xam ne mi ngi war a dajeek Mehdi Bargui euh, rëg-rëg nag ginnaaw bi mu demee Dubaay di pré di préparer wu. journal suñu làmb nee ne jógee na fa depuis démb instant yi mi ngi ci Singapour uniquement pour préparer combat boobu ñu fàttali ne dernier combat bi Reug rek mu ngi daanee woon euh, Alain Pierre Ngalani muy jëm ci troisième combat am nag contre euh, Mahdi Mehdi Barguimi la 7 avril foofu ci Singapour. ma nga noonu nag di ko ñaanal ndam lu kawe kawe kawe kawe jàmm ak salaam ci Reug Reug moom doomu Sénégal boobu Assane li moo nekkoon li gën a fës si boobu xibaar tàggatoo di la remercier Ndeye Mbacke di remercier internetu Leewtoo TV di remercier équipe bu Leewtoo yëpp jiital ci Fama Yacine ak euh, ñi topp yëpp <laughs> di leen jox dag dig daje ba suba ak jàmm incha allah. wala ba leen incha allah. <laughs> moo ngi doon nag jaajëfal naa ne bu baax am kontaan ak mbégte jano ak yéen chaque jour comme ni ñu koy defee. Fama maa ngi lay sant la gërëmaa ah, kontaane naa la bu baax sama caméra woman bi Yacine Fall Mansour la xale bi Kébé bëgg naa la bu baax mbay Babacar ma ca maa ngi lay nuyu. den jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.